salaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi leen nuyu yéen ñëpp di leen ziar di leen baalu ax di leen baal ax di leen wax ne yàlla ñu yàlla boole baal di leen nuyu waat di leen wax ne tey ji waa service au talibé ñu ngi seen sixième édition fii ñu koy defee fii si kër Serigne Babacar Sy Kane benn centre boo xam ne suñuy rakk ñoo fi nekk xam naa dañuy dañuy dañuy dañuy jox rek parole bi képp ki nga xam ne ne mooy représentant centre bi mu gën a leeral la mooy centre bi ak Serigne Babacar incha allah léegi suñ paree ñun waa service au talibé ñu gën a kii suñu tëj suñu mot de fin mot de fin incha allah. asalaamaaleykum ñu ngi nuyu ñi fi teew ñëpp euh, di nuyu également waa service au talibé di leen dalal fi nga xamante ni mooy delloo si kër Serigne Babacar Kane mu nekk euh, béréb boo xamante ni nii euh, dañ fi yor ñi nga xamante ni dañu amee feebaru xel waaw. donc ñuy def benn élément bu am solo maanaam muy euh, socialisation maanaam socialisation bu ngeen ko déggee mooy dañu bëgg a wan askan bi que ni ñi nga xamante ni dañoo amee feebaru xel dañu mérité am euh, épanouissement maanaam dañu war a dund comme ñi nga xamante ni noonu la ñuy dundee ci ci biir kër yi. parce que bu ngeen fi ñëwee comme ci yeneen kër yi dañu koy defee bu ñu yeewoo dañ leen di sang ba ñu set jox leen ñu ndékki dañ leen defal ay ataaya képp koo ci yónni. dafay dem maanaam dañ bëgg a xamal askan ñi que ni ñoom war nañ mën a dund comme ñun ni ñuy dundee te pour que loolu mën a am il faut askan bi tamit euh, ñu jàpp ci combat bi parce que nekkul combat boo xamante ni nii delloo si kër sëñ Babacar kan euh, kan kase ñoom ñoo ko ñoom ñoo ko mën a mëni parce que tamit li ñu gën a xaar ci euh, askan wi mooy surtout côté sensibilisation ak communication il faut képp koo xamante ni tey yaa ngi nekk ci biir askan bi foofu moo mënti toog na ngay waxtaane ñi nga xamante ni tey dañu amee feebaru xel te ana lan lañ mën a xam mooy dañu am ay droit te droit boobu noonu tey pratiquement on a comme l'impression que ni kenn joxu leen ko parce que bu ngeen xoolee la plupart si ci boo génne ci mbedd mi dañuy errer te pourtant ku ci nekk tey mérité na tey am fenn fu mu nekk te dello si bii nii c'est juste benn exemple pour wane ni que ni euh, li nga xamante ni moom mooy suñu objectif muy zéro malade mental errant loolu lu mën a nekk la te lii dafa nekk juste benn prototype boo xamante ne nii tey dañuy invité askan bi à que tey ñu adhéré ci concept boobu noonu parce que ñun gëm nañu lu mën a nekk la. beneen bi également mooy bu ngeen gisee même li jëm ci affaire ay couverture maladie yi pratiquement ñoom kenn jëlu leen en compte parce que tey foofu pour ñu mën la jël en compte il va falloir tey da ngay exister tey ñun lan lañ ooyee exister mooy il faut euh, maanaam euh, état civil reconnaître la état mooy di nga am tur am sant. am filiation yi nga xamante ni mooy mën a tax ñu lay identifier alors que ni ñoom ce n'est pas ce n'est pas le cas tey duñu mën a bénéficier ci ay couverture maladie universelle duñu mën a bénéficier ci yi nga xamante ni moom mooy ay programme état bi tey bu ngeen gisee euh, buñ ñu jëmee ci ay nawet dañuy def ay campagne de de prévention contre le palu nest pas et pourtant tey jii nii ñu si bëri dañu yaakaar ne ñoom duñu feebar <laughs> alors que dañuy feebar tu vois donc tey ñoom dañ leen war a mën a euh, jël en compte campagne noonu tey dugg dans les artères jëm leen récupérer xool s'ils sont malades ñu jëm leen mën a toppatoo parce que delloo si pratiquement ci loolu lay yëngu centre bii nii peut-être moom mooy lieu bi mais dañuy def ay sorti que ça soit nocturne wala euh, le jour dañuy génn parfois bu ñu xoolee que ni kii nekk na si état boo xamante ni nii dañ ko war a jël récupérer ko defal ko toilettage euh, solal ko ay yére euh, wat ko tout ça après malheureusement on est obligé de de libérer parce que comme vous n'êtes pas bon vous n'êtes pas censé savoir que ni fii mënuñu mënuñu yor ñëpp parce que non seulement les moyens ne le ne le pas mais également tamit fi ñu euh, fi ñu nekk nii tamit permettre ko mais tey suñu objectif moo nekkoon zéro malade mental errant dans les te jàpp nañ ni peut-être avec euh, euh comment dirais communication nit ñi ak sensibilisation bi peut-être dinañ dem benn jour ba li nga xamante ni tey moom la ñuy mbébét euh, yàlla suñu borom defal ñu ko beneen loolu c'est c'est une possibilité ah, lu mën nekk la mhm. parce que y a des gens yoo xamante ni tey bañ fiy njëkk a ñëw bon pour ñi nga xamante ni nañ nañu habitude di fi ñëw ba nga leen doon soo a gis ak boo leen gisee tey bon da ngay xam ni lii amul secret il suffit tout simplement que ni ñu xam nga ñu jàppale leen rek automatiquement dañuy dañuy ñëwaat société bi mhm. parce que tamit quoi qu'on puisse dire ñoom ay nit lañ comme ñun peut-être li nga xamante ni moom moo leen dal jommuñu waaye jommul kenn mhm. parce que tamit li nga xamante ni peut-être euh, dans l'avenir puisque association ngeen yor il se pourrait que même ngeen bénéficier aussi yenn formation yoo xamante ni tey dina leen gën a tax ngeen am compréhension aussi la question de la santé parce que tamit pour man euh, personne n'est à l'abri surtout ak contexte bi ñu toll nii bon bu jógee ci loolu également dañuy remercier service aux talibés ci li nga xamante ni ni tey euh, moom lañ fi indi pour jàppalee ko déjà delloo si kër sëñ Babacar Kane dañ koy rafetlu non seulement le fait que ngeen décidé ñëw euh, passer la journée ak ñun pour euh, ñu ndogu ndogu ensemble ngeen joxe ndogu juste rek li nga xamante ni moom la ñu wax ci euh, boo fekkee ku wóor ba pare nga jox ko mu ndogu rek yool boobu rek déjà kenn xamul nu mu toll. Mm-hmm. non seulement lañu ñaan yàlla yàlla leen ko yàlla fay. mais également tamit li nga xam ne moom ngeen fi indi yàlla na yàlla suñu borom fulal leen ko ba li nga xamante ni tey moom mooy seen bébét mm-hmm. peut-être yéen yéen a ko xam seen objectif ak fi ngeen bëgg a jëm. yéen a ko xam donc dañ leen ñaanal yàlla yàlla na leen yàlla may ba ngeen àgg fa ba bon ba mu raw seen njortu mais également tamit collaboration bi nga xamante ni tey moo war a mën a am diggante euh, kër sëñ Babacar Kane ñun certes dañuy yëngu ci santé mentale mais également yéen ñi nga xamante ni ngeen yëngu ci taal bi pratiquement ñun ñoo bokk même cause yi peut-être euh, approche yi moo nekkul benn fii euh, ñi seen xel neexul la mais également yéen tamit yéen a ngi œuvre ci domaine boo xamante ni bu am solo la parce que tamit quoi Euh, les kii les les handicaps euh, mentaux euh, les handicapés mentaux de même que les les les ñoom ñëpp pratiquement boo xoolee seen seen degré de vulnérabilité dafa dafa nekk loo xamante ni dafa jéggi dayo mhm. donc tamit encore une fois pour ne pas tirer en longueur di leen remercier encore une fois te di wax bon di ñaan yàlla suñu borom yàlla ñu yàlla may ñu fekkee ko ay déwén yu bëree bëri bari ba li nga xamante ni tey mën nañ ko ren yàlla nañ bon yàlla nañ mën lu ko lu ko ëpp déwén. incha allah merci waaw gars yi de ñoo ko déggandoo ñoo ko déggandoo xanaa ñuy ñuy ñuy lancer appel rek euh, autorité yu tëngee ji parce que ñun du ñu keneen du ñu keneen ku lu autorité yu tëngee ji ñu leen lancer ne leen am na centre bu mel nii bu nekk fii si tëngéej nekk si si si xolu tëngéej sax laay wax parce que diggante Bargny ak ak tëngéej si xolu tëngéej la ne ay xale yu ndaw a fi nekk suñuy rak suñuy jarbaat ñoom seeni doom am ñoo xam ne seeni sët ñoo fi nekk pour ñu ñëw jàppale leen te yàlla tax parce que fii moom lépp loo fiy def moom te defoo ko yàlla tax rek amul sens waaw ñu leen di lancer appel autorité yu Tëngéej ñu commencé ko si maire de la ville de Rufisque ñu commencé ko si ñu ñoom si Alioune Mar Fall mooy maire de Rufisque Ouest ak yeneen maire yi ko wër yëpp ñu leen di wax ne ñu ñëw seetse leen jàppale leen parce que soxla ngeen dimbal parce que ñun ñu fiy ñëw xam nañ ne xale yi fii ñu fi nekk nii soxla nañ dimbal bu baax a baax a baax a baax a baax waaw xanaa ñuy ñu nag lii nag yàlla xam na ko ñu xeeb ko service au taal bi bëggoon na fi indi lu ëpp lii lu ëpp lii mais mais dafa doon lu xam ne service au taal bi biñ ko biñ ko fondé ba tey dafa doon lu xam ne ñun tamit suñuy moyen boppa la ñuy demee parce que ñu ngi si sixième édition ñun suñuy membre ñooy cotiser suñuy membre ñooy cotiser ñu defal ñu def événement amul benn autorité buy taxaw ne service au taal bi maa leen di financé wala benn association bu koy wax amul benn bu koy wax si Tëngéej wala alentour Tëngéej sixième édition ba tey ñun ñooy def suñuy moyen bopp lii nii ngeen fi gis yëpp suñuy moyen bopp la te fii koo si gis fii nii su fi ñaar ñett ak ñeent liggéeyul ñu ne ñaay élèves lañ waaw xanaa ñun tamit ñun tamit ñuy lancé walla appel ñun tamit service otage parce que am nañ yeneen événement yu ñuy xaar parce que chaque 3 mois dañuy def événement essane ñu ngi waajal beneen événement boo xam ne Ari Chérif la xam naa mois de septembre incha allah lay doon mois de décembre war nañoo def beneen événement boo xam ne Tëngéej lay doon côté juuti bi foofu lay doonee incha allah ñun tamit ñuy lancé appel ñun tamit si waa service au tal bi di wax autorité yi ñu ñëw teg ñu loxo parce que ñun su ñu tegee loxo jàpp nañ ne dëkk bi lu bëri dina fi changé li ñuy wax si taalibe yi dina am changement bu ndaw buñ ci def suñ mënul changé lépp parce que taalibe mënul jóge si réew mi taalibe mënul jóge si réew mi lenn rek moo fi am ñu ñëw teg leen loxo ñu mën a dem parce que taalibe bi su jógee si réew mi mooy jàkkee jumaa yi dañ koy tëj man loolu laay imaam ngay woo te imaam taalibe yi lay jóge ku fi am doom imaam ngay woo imaam ngay woo te moom mooy tudd sa doom léegi nag ñuy ñaanaat waa autorité yi tëngeej ñu ñëw teg ñu loxo te teg loxo yeneen association yu mel ni kon ñun waxuma ñun kase nañ ñëw teg association yi nga xam ne mel ni kon ñun te def te yàlla tax parce que ñun te yàlla tax moo ñu fi tax a taxaw defuñu affaire puukare politique ñu defuñu dara dañuy def te yàlla tax ku pare pour def te yàlla tax moom incha allah moom soo ñëwee suñun moom di nga si li nga bëgg di nga am si ñun incha allah ñi ñu ngi ñu ngi gàttal lii remercier nag parce que lépp loo gis am na ñuy remercier suñu télé bi Kër Ndaanaan TV remercier waa Welcome Business parce que ñoom dañuy jàpp suñu événement chaque fois ñoo ñu couvriral waa Welcome Business ñoom ñoo ñëw jàppal ñu si wàllu image ñu ko gërëm suñu frère As moom tamit moom chaque événement incha allah moom moo siy jàpp ñuy gërëm suñu partenaires yi xam ne am nañ partenaires yoo xam ne ay mag lañ suñun ku si mel ni welcome business ku si mel ni marque ñu ngi leen di gërëm di leen sant suñu limee moom dañuy juum di gërëm di gërëm di gërëm waa service au talibé ñëpp ñëpp ñëpp suñu limee dañuy juum ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen wax ne incha allah ba mois de septembre si beneen édition salaamaaleykum wa rahmatullah